ab du càmm ñu ngi lay nuyu Mame maa ngi yow bokk nga ci secrétariat national bu parti démocratique sénégalais yaay secrétaire itam fédération départementale bu Linguère bokk nga itam ci commission communication bu parti democratique sénégalais gis nañu li nga xam ni moo jëm ci commission d'enquête parlementaire bi taxawal nañ ko ba ñi nga xam ni itam ñoom ñoo ci war a bokk ñoom ñëpp xam nañ leen Abdou Mbow moo ko nar a jiite itam Lamine Thiam nekk vice président bi alors li ni mel taxawal nañ ko mu nekkoon seen bëgg-bëgg. ndax jàpp ngeen nii ndam loolu ngeen am jàpp ngeen ni itam dina aboutir quelque chose daanaka euh, vingt quatre heures moo des ñu dem ci campagne électorale bi. waaye lii je pense que li ñu war a jàpp rek mooy que li ñu doon sàkku yàlla def nañu am ko li ñu doon sàkku daal mooy ñu teg benn commission d' parlementaire parce que dañu jàpp ne ñun PDS parti boo xam ni bañ koy créé Afrique li ñu xamoon mooy rébellion ku am lu la métti da ngay jël arme dam xeex dam guerre Abdoulaye Wade ne déedéet moom xalaat gisee wut noonu dafa gis ne ku nekk. mën nga créer sa parti ñëw nga teg ci loi lépp loo xeex ñu teg ko ci loi donc PDS buñ ko sosee ba léegi lépp lu ñuy xeex ci loi ak règlement lañ koy teg donc boobu ba léegi ñu nekk ci mu nekk suñu principe mu nekk suñu ADN lii aussi ba mu amee ñu gis na suñu candidat Karim Meïssa Wade dañ ko génnee ci liste candidat yi parce que dañ ne wax ne ba muy déposer candidature amuloon amoon na ñaari nationalité le conseil constitutionnel ba muy décidé gis na vraiment Karim Wade am na décret bu woon ne ne moom nekkatul français waaye mu bàyyi loolu mu bàyyi loolu dem jël leneen loolu nag ak leneen ñi ci xew ñu gis ne am na journaliste yoo xam ci biir ci bëccëg bi le 20 janvier ci bëccëg ñoom amoon nañu information yu bari donc mu nekk loo xam lu day waar parce que conseil conseil dañuy wax ne ñoom seen waxtaan warul seen kenn waru ko xam te am na Sénégal yu bëri kon yu xamoon li ñu fay def ñu doon suivre seen i travaux donc muy nekk lu day waar bu ñu amee arbitre boo xam ne moo war a marché match arbitre boo xam ne day waxtaan ak ñeneen ñi ñu war xam ne mi ngi déggoog ñi ñu war a football ak arbitre boobu day téye xel tey def arlo mënul mënul mënul mënul arbitre match Sénégal bi di mooy conseil constitutionnel donc dañu ja wax waa PDS ñun jàpp nañ ne dafa am ay soupçon yu doy waar yu garaaw a garaaw parce que bu ñu waxee ne dafa am guerre pour du sànni si loosu conseil constitutionnel ñoom war loolu dafa nekk loo xam ne Sénégalais yëpp la war a interpellé du waa PDS rek donc ñun li ñu laaj mooy ñu sa ñu leeral mbir loolu la ñuy laaj te loolu je pense que tey lii ñu def commission d'enquête bi ak bureau bi commencé liggéey vraiment dañuy jox satisfaction nañ ci sant yàlla bu baax a baax di wax nag ñi baral mbir mi parce que fi ñu jëm dafa nekk mbir moo xam mu doy waar. mais déjà ñu ngi dem ci campagne. waa dañuy dem ci campagne waaye campagne bi leen lu ñu ci dem terewul ne processus bi moom à tout moment je pense que bo dañuy dem ci match boo xam ne dañuy gis ne baaxul parce que Sénégal damay fàttali Sénégalais Sénégal football na benn match ak Afrique du Sud. arbitre bi ko geroon mais match boobu moo ko gagné mais dañ mujj annulé match boobu aj arbitre bi ñu reprendre. pour ñu bañ a def loolu lépp di yàq énergie boobu yëpp tey kon war nañoo mën a ñun avant ñuy agsi di jouer match boo xam ne du baax ndax ñi fa nekk ñi arbitre baaxuñu ñu ne nañ ko xool saytu ko bu ko defee ñu mën dafa rëq-rëq balaa balaa gën a sori donc loolu mooy suñu mooy suñu yéene que sénégalais yëpp ànd ak ñun ci loolu parce que quand même ñun li ñu bëgg mooy réew mi nekk ci dal li bëgg mooy réew mi nekk ci jàmm li ñu bëgg mooy Sénégal dem ci développement parce que Sénégal dafa am pétrole am gaz te pétrole gaz mu am lu tàkk dafa yomb donc loolu lépp ñu bañ ko Sénégal mais nag loolu pour ñu bañ ko il faut que ñu am ay ñoo xam ne dañuy ànd ak ñun ci xeex bi mooy cour constitutionnelle bi ñu changé ko ñu reprendre poste électorale bi yëpp parce que gis ngeen ni fi xew dafa doy waar Sénégal yëpp jàpp na ne tey yàlla ak loo mën a bañ bañ Karim Wade ba juge di jël décision bi jamono jooju Karim Wade moom bàyyi na nationalité muy lu metti ci moom parce que yaayam fa juddu yaayam nekk tubaab moom xëy moom nekkatul tubaab xam nga loolu ñun ñii tey nekk ñun ñëpp ay métis fekkoon ku nekk laaj na la ñu nga def loolu ak ko bañ ndax xam nañ yaay nu mu toll ci waaye nag loolu lépp jël na ko décision loolu lépp jël na ko pour bëgg Sénégal rek pour bëgg ñu bokk Sénégal euh, élection pour mën a ko Sénégal développement bi ñu bëgg Sénégal am na lu mu ci xam réew mi mu nekkoon muy réewum pétrole gaz am na loo xam ne mu fa jàng ak loo xam ne na ko indi Sénégal Sénégal yëpp yaakaaran ko ah ñii nit ñi def seen i pexe am ñu def seen i pexe ñoo xam ni ñi ngi ci politique bi ak conseil conseil def seen pexe ba génn ci Karim Wade loolu nag lañ bëgg mu leer incha allah dina leer. ngeen bëgg itam ñu daal di tas conseil constitutionnel buñ ko tasee lan lañ fay teg. man liñ fay teg moom de mën na mën na ko waxaa waaye li am solo rek mooy tey arbitre bii moom dafa mënul arbitre dafa jeng dañ koy aj dañ koy dindi arbitre boobu nag wut beneen arbitre nan lañ koy tuddee fan lay dëkk loolu lépp des na ko waxtaanee waaye li ci am solo mooy kii moom tey jàpp nañ ne mënutul arbitre match bi parce que dafa jeng dafa far dafa dafay dafay senn ay ay information ñooñu nag tey dañ leen wala teg na le bu ko defee ñu tas conseil constitutionnel toxal élection yi bu ko defee ñuy arrêté pour yëpp dajawaat waxtaan pour indi jàmm Sénégal parce que président Macky Sall day dem moom pare na ci waaye nag buy dem dafa war a bàyyi jàmm buy dem dafa war a bàyyi réew mi ci loxo yu wóor dafa war a bàyyi réew mi ci ay situation yoo xam ni du indi ay rëq-rëq loolu nag moo tax ñu woo Sénégal yëpp ñu leeral mbir mi bu ko defee ñu toxal élection yi daje waxtaan. tegaat beneen processus électoral. lu mën a nekk la toxal élection yi ak fi ñu toll. waaw xam nga wax naa la léegi xam nga ne lu mën a nekk la parce que man jàpp naa ne buñ nar a dem ci élection yoo xam ni ñi ko war a àtte ñoom nit ñi waxum amul ñoom kóolute ci moom àtte nag bu amul kóolute moom mënoo dem ci élection donc tey jàpp nañ ne di woo Sénégal yëpp di woo le président Macky Sall lui-même parce que quand même c'est la clé de voûte des institutions bu fu mu toll moom moo war a jël décision moom la ñëpp di seetaan moom la mu jël décision boo xam ni day indi jàmm Sénégal. waaw maanaam maanaam tukki bu mu nekk bu ñëwee mu jël décision. bon mu jël décision xam nga lu tax parce que jàpp nañ ne mais mënuñu def élection indi coow indi coow boo coow boo xam ni mën na indi rëq-rëq ci biir parce que élection yi def ko ci benn weer nga def ko toxal ko ñaari weer ñetti weer wala juróom-benn weer yàqul dara Sénégal ñu dem ci jàmm parce que réew mi jàmm la ñu xam réew mi lu mu bëgg mooy dal la bëgg loolu nag je pense que ñun ñëpp am nañ ci responsabilité waaye ku ci ëpp responsabilité mooy le président Macky Sall moom lañ koy wax mu jël les bonnes décisions pour que ñu taj tas euh, conseil constitutionnel et ñu doxal élection yi acteurs yëpp dajawaat waxtaan pour mën a dem ci élection yi jàpp yow dégg nga ko coalition benn Bokk Yaakaar daanaka boo waxatuñ benn kàddu ñenn ñi ñu ngi wax report ñeneen ñi itam ñu ngi ne nañ amal élection yi ñenn ñi itam jàpp ni yéen réeroowu leen. waaw xam nga ñun li wax moom ñun leer nag ñun moom dañoo assumer li ñu wax ñun commencé. nee na lii xeeñ dalu suñu xel bañ ko lëñtoo gis na am na information yoo xam ni wér na am na ay jaxasoo entre ko ñi nekk conseil constitutionnel ak ay politiciens am na ay jaxasoo entre conseil constitutionnel ak ay journalistes am na ay jaxasoo entre ay journalistes ak ay acteurs politiques loolu nag lañu bëgg mu leer donc ñun bu loolu bañ ko analyser au niveau du dañoo jël suñu décision ñun lu ñu bëgg assumer ko ñu ne neen tas conseil constitutionnel ndax amatul benn njëriñ waaye aussi nañ toxal élection yi toxal élection yooyu nag fekk dafa am ñeneen ñoo xam ni dafa ñëw dañ ñëw jàppale ñu lool dañ ci sant yàlla bu baax di woo sénégale yëpp nag ak parti politique yëpp ñëw ànd ci loolu bu ko defee loolu mooy la majorité te majorité bu àndee bu ñu àndee ci ñun kon ñu ñu bëgg lañ ko am bu ko defee ñu toxal élection yi ba jëmi jamono surtout bu nekkee nag le cas du président parce que quand même loo mënti wax jamono ji ñu toll je pense que président Macky am na ci responsabilité bu rëy a rëy donc bu ñu demee ba une partie jóge ci appaire commencé na ah waa PDS yi li ñuy wax de am na lu ci nekk dëgg kon nag loolu dañuy sant yàlla bu baax di vraiment di sant suñu kilifa yi ci yoon wi ñu jaar xam ne yoon wii mooy yoon woo xam ne mooy yoonu dëgg. yaa ngi dégg itam coowal nationalité beneen bi itam mooy Rose Wardini moom itam candidate la franchir li nga xam ne moo jëm ci étape yu bari euh, moom itam daanaka ci xarala yu yees yi ñu ngi ci fësal ni ah, dafa am beneen nationalité France lan moo ci sa appréciation. waa xam nga li ñu waxoon rek Karim Wade waxoon na ko nee na am na candidat yu bëri am nañ nationalité yeneen lii jaaxal Sénégal yi kay lu tax. Euh, Karim Wade rek lañ ci siggiri loolu moo jaxa Sénégalais loolu nag bon li may faral di wax rek c'est mooy li ñuy wax la rançon du succès àdduna bu leen ñëpp yaakaaree bu ñëpp yaa bu ñëppee amee euh, yaakaar yi dal donc moom ni ñu xalaat ni ñu xoolee ay mbiram ba génnee ay mbiram avant élection yi mënoon nañ ko xoolee ñeneen ñi waaye ñeneen ñi intéressé wu leen ba kañ Sénégalais Karim lañ am yaakaar. est-ce que ñoom yëgoon nañ ko. waaw mais niñ def ba xam Karim Wade biñ ciy lis si dañ ko wër dañ ko seet buñ seetoon ni ñu ko dañ bu ñu seetee Karim Wade bu ñu ko seetee Rose Rose bu seet ko keneen dañu xam ndax am nañ nationalité France wala États-Unis donc mais ñooñu intéressé wu leen ku leen intéressé mooy Karim ndax Karim moo leen jiital Karim moo leen xaw a jaaxal donc nag bu ñu demee tey ñu am na ñeneen ñoo xam ne am nañ nationalité Karim Wade waxoon na ko da koy dëggal daf ñuy gën a dëggal ñun waa PDS waaye ñun nag suñu rôle suñu cër du du weeje suñu cër du du yàq opposition suñu cër mooy joxe ay proposition suñu cër mooy fexe ba opposition bi daje pour ñu wut benn programme boo xam ne mooy développer Sénégal. mais justement seen candidat bi neena moom am na ñi nga xam ni xamoon na leen yor nañ yeneen nationalité mais pourquoi moom tamit waxu ko. waaw maintenant moom loolu da doon rôle boobu mooy rôle conseil constitutionnel ñun suñu rôle mooy ñu déposer li ñu war a wax na amuñ benn candidature te Karim bay conseil constitutionnel jël décision le 20 janvier amutoon beneen candidature waaye nag conseil constitutionnel ni ñu xoolee Karim Wade la ñu war a xoolee ñëpp waaye nag moom ñoom Karim Wade rek la ñoom ñett bu fekkee am na koo xam ne tey dafa juum ah, wala koo xam ne dafa liggéeyam je pense que nañu xool feneen xooli côté conseil constitutionnel waaye ñun li ngeen waroon def def ngeen ko beneen laaj bi itam jàpp ni euh, li loolu ngeen war a def mooy seen candidat fexe ñëw fii ci diwaanu Sénégal itam mëne combat bi ak seen wet waaye ba léegi gisuñu candidat bi kañ lay ñëw. loolu moom dëgg la li nga wax loolu dëgg la ñun ñëpp d'accord nañ ci. ba ñu réunir ñun suñu section yi ah dem réunir suñu fédération département Linguère man dem naa réunion samedi passé euh, ba ñu dajee li xel li militant yeeg wax responsable yi Karim Wade na yooyu moom section fédération PDS yëpp wax nañu te loolu it moom it moom wax na ko ne dina ñëw donc nañ dalal xel nit ñi ne Karim dina ñëw ànd ak ñun ci xeex parce que jàpp nañu fi Sénégal tol foo ko ñëpp ànd ci waxtaan fexe ci bënd li donc Karim dina ñëw donc loolu ñun ñëpp wax nañ ko bind nañ ko. Euh, wax nañ ko ko donc moom comprendre na ko mi ngi préparé pour ñëw. xanaa léegi da ngeen koy jëli da ngeen koy jëli wala day ñëwal boppam. non xam naa jarul jëli xam na yoon yi li xam na yoon yi xam na ne mën a ñëw donc dina ñëw du yàggul sax xam naa ne loolu moom fan yii rek da ngeen gis Sénégal incha allah. te nee na beneen combat mooy reporter élection loolu naka la mën a nekkee te moom ñëwul. combat boobu mooy suñu combat ñun ñëpp mooy combat PDS mooy combat Karim Wade Ah, te tey wax nga ko yow yaa ngi ko wax léegi naka waa APR am na ñoo xam ni commencé nañu ànd a ñun ci loolu donc loolu mooy combat kon aujourd'hui une partie de benn bokk yaakaar bu yàggee nag mu nekk combat Sénégal waa Sénégal bu ñu bëgg mbir dañ ko mën a am donc ñu ngi ñaan yàlla lii ñu bëgg ñu yàlla na sotti ci jàmm. Abdou Thiam ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. ni nga nangoo tontu suñuy laaj. di fàttali ni yow bokk nga ci secrétariat national bu parti démocratique sénégalais secrétaire bu fédération départementale bu Linguère parti démocratique sénégalais bokk nga itam ci commission communication bu parti démocratique sénégalais. merci beaucoup.